mbokki internet yi rawatina ñi nga xam ni ñooy ànd ak lii di programme info réew mi dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci seen rubrique bi ñu jagleel yóbbalu 18 safar tey ñuy dikk ak yéen ci ki nga xam ni moo jëkk nekk sëti Serigne Touba Xaadim Rasoul bu fi nekk xalifa général des Mourides muy wuyoo ci turu Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moomu nag mi ngi gane àdduna ci atum 1921 foofa ca Touba nekk doom ci ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadou Fallilou Mbacke ak soxna Xari Sall sëriñ Mouhamadou Baara Mbacke moomu moo wuute ci jal bi ki nga xam ni waajur la ci moom di sëriñ Saalihu Mbacke gannaaw ba mu génnee àdduna ci atum 2007 ci ndawam ba mu tolloo. maanaam dalba kii di sëriñ fàllilu mbakke di mag ci ki nga xam ni mooy sëriñ lamin baara mbakke bu sëriñ tuuba mu mag ma moom la ko tuddee daal di ko koy jox ngir mu dalal ko jàngal ko alxuraan waaye yar ko tamit ci diine gannaaw saga kii di turandoom di sëriñ lamin baara mbakke ibnu sëriñ tuuba daal di koy jël jox ko ki nga xam ne nijaay la ci moom di sëriñ du Amar nekkoon foofa ca bareel Kër sàmba Baareel Kër sàmba Jaw googu nag mu nga nekkoon sa booru ngay Maxee ca ginnaaw ba nga xamee nii nekk na magum jëm kii di sëriñ Mouhamadou lamin Baara Mbàkke ku jige woon waajuram bu tedd wala di sëriñ Fàllu Mbàkke ba taxoon na mu daal di woon jël ko def ko mu nekk chargé de mission am maanaam lépp loo xamante ni ji ay yónnente la wala lépp loo xamante ni ji da ko bëggoon a doxal te tànkam jotewu fa kii di doomam ji di Mouhamadou Lamine Bara moo ko doon doxal mu nekkoon loxaam nekkoon itam tànkam ci wolute ga ak ngëm-ngëm gi nga xam ni amoon na ko ci digganteem ak waajuram di sëriñ Fallou ci loolu ki nga xam ni mooy sëriñ Mouhamadou lamin Baara liggéey boobu nga xam ni doon na ko liggéey waajuram te lépp amu ci woon benn gàttañlu taxoon na mu rafetlu ko ba dénkoon ko lu ci bari ci ay mbiram yoo xamante ni ji moo ko doon doxal ci lu jege ak lu sori kii di Mouhamadou lamin Baara Mbàkke nekkoon na koo xam ne ji yemalewul woon cër boobu ci waajuram wu góor rekk waaye mag yi waajuram bu góor di sëñ Fallou ak i rakkam ak njabooti sëriñ Touba yépp nekkoon na koo xamante ni ji ku leen joxoon cër la waaye ku toppoon seen digal la ngir liggéeyal maamam ju tedd ci sëriñ Touba Xaadimu Rasuul kii nga xam ni mooy Mouhamadou Lamine Baara Mbacke bokk na ci cër boobu kii di waajuram ci moom di sëriñ Abdou Khader Mbacke nekkoon na koo xamante ni ji ba muy dem foofu nga xam ni mooy ca Makkatal Mukarram moom moo ko gunge woon mu nekk koo xamante ni ji dafa nekkoon guide principal bi nga xam ni bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoo doon jàppale sëñ bi ak lu jëm ci wàllu aj gi ba ni mu dellusee fi nga xam ni mooy Touba Mbacke. ki nga xam ni mooy Serigne Mouhamadou Baara Mbacke nekkoon na tamit boroom xam-xam bu mag boo xam ne ji li jëm ci wàllu kàllaama bari woon na lu mu ci xam rawatina lii di arab ak français ba ci anglais da ko doon wax nu mu ko neexee waaye ki nga xam ni mooy sëriñ Mouhamadou Baara mbakke nekkoon na koo xam ji ci ay kéemtaan ak pas-pas ak yéene ji nga xam ni amoon na ko ci liggéeyal ki nga xam ni mooy maamam ji di Serigne Touba Rasool nekkoon na loo xamante ni ji ràññee woon nañ ko ci ba ci lu jëm ci jullik ajjuma gi nga xam ni doon nañ ko amal ajjuma ju jot foofa ca grande mosquée bu Touba. mu fa doon teew waaye tamit di saafonteeg julliti ak taalibe yi te di leen jàppale ci lu baree baree bare ci taxoo gi nga xam ni taxawoon na ko ko waajuram wu tedd wa nekkoon na loo xamante ni ji ñëpp dañ koo rafetlu woon waaye tamit mu nekkoon ab royukaay si ndigal ak li nga xam ne rek mooy bëgg-bëgg gi nga xam ni amoon na ko ci waajuram yooyu ak njabootu Serigne Touba Xaadim Rasoul Serigne Baara Fàllilu ñu gën ko xam ci Serigne Mouhamadou Lamine Baara moom nag génn na àdduna wuy ji boromam jigéen waajuram bu tedd sëriñ Fallou ak maamam ak ñi nga xam ni ñooy njabootu maamam Serigne Touba Khadim Rasoul ci fanweeri fan ci weeru juin atum 2010 la woon mu bàyyi nag ci bopp xilaafa gi rakkam ju tedd ja di Serigne Sidi Mokhtar Mbacké nga xam moom it liggéey na liggéey bu rëy diir bu mu nekkee ci boppu xalifa gi ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Mati Lay Mbàkke kon mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci ku tedd kooku di sëriñ Mouhamadou Lamine Baare Mbàkke nekk doom ci sëriñ Mouhamadou Lamine Fallilu Mbàkke nekk première sët muy sët bu jëkk bi nga xam ni moo wóotu maamam ja sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ci bopp xilaafa gi gannaaw ba waajuram ci moom di Cheikh Saliou Mbacké dëddoo génn àdduna wuyu ju borom ci atum 2007 kon numéro bii di ñëw dinañ fas yéene ànd ak yéen ci seen site info Rewmi ngir waxtaanal leen baneen xalifa dikk yi nga xam ni mooy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ci li jëm rek ci 18 safar kon mbokki internet yi jox leen rendez-vous suba incha allah ci beneen numéro. ngir gunge leen ci wàccaayu màggal gi rawatina ci bés bi nga xam ni mooy bésu 18 safar.